tëjee rek euh, mooy nit lépp lu am da ngay gëm yàlla te heureusement sunu leader gëm na yàlla tey même bu nekkee xam nga waxuma am na wala amul wax nañ ko maanaam bu dee décret la. Mhm. ñu ne Macky bind na décret kon Macky moom mooy buuru réew mi day toog rek neexu ko mu dàq Ousmane Sonko fi muy liggéey mu demaat ba mu yàgg neexaatu ko wala am na lu xew mu dissoudre ko kon léegi jeex na kon justice amul kon moom mooy lépp mooy càppaculi bi. ci jour bi nga xam ne nag inculpé nañ Ousmane Sonko ne mandat dépôt toppee ko presque sept à huit infraction waa léegi ci biir infraction yooyu xanaa dañuy dem ba lijjanti parce que dañ ne instruire mooy lëñbët da ngay lëñbët lan moo xew ak liñ koy jiiñ ñu buñ ko lëñbëtee ba xam li xew ñu teg ko ci taabal bi ne ah yow de Ousmane Sonko yow ak sa parti lii ak lii ak lii a ngi nii insurrection beeg appel en langue nangam ak lu nekk ñu luñ bind yëpp lii mooy preuve yi léegi nag dañ lay daan dissoudre Pastef parce que tegoo leen ko ci yoon loolu d'accord nañ mais ci même jour bi nga xam ne dañ leen dañ leen instruire pour lën lënbët ci même jour lañ bind ne dissoudre nañ ko kon kañ jaruloon ñu ne mandat dépôt mënoon nañ ko inculper ci jour bi rek inculper nañ la dóor nañ la nangam tas nañ sa parti jaratul mu fay toog di Euh, de jaratul mooy euh, ñuy wax ne mandat dépôt di mandat dépôt di ku xam ñëpp loolu laa laa ci mës a dégg mandat dépôt mooy dañ la fay teg pour lijjanti ji pour instruire léegi ñoom balaa ñoo instruire nee nañ tas nañ kon léegi lan la ñuy lën bëccëg léegi buñ juge bi demee ba ci biir gis ne luñ ñuy toppee amut lan la ñuy waxaat ah, wala juge bi ñoom ñoo ko moom ci ci li ñu jëm. juge bi mun na ñëw ne loolu amul li ñuy jiiñ ñoom Ousmane Sonko amul léegi nag loolu lan lañ ciy waxaat gis nga Sénégal nañu arrêté caaxaan gis nga nit loo ko bañ bañ nangul ko ne lëg gudd na nopp Ousmane Sonko sénégalais la li ma ci gën a métti mooy li liñ doon wax ci gendarme bi dañ ne gendarme bu jigéen bi Ousmane Sonko moo arraché téléphone ci biir procès bi de ci biir audition bi ñu ne avocat yi ñoo ko wax. publiquement ne gendarme bu jigéen bi nee na Ousmane Sonko jëlul téléphone bi ay garde corps ñoo jël téléphone bi. mais il a la responsabilité. waaw même s'il a endossé moom loolu lu koy firndeel du enquête. mais moom si boppam Ousmane Sonko je pense que poste bi mu def pap mm-hmm. su ma juumul. arraché moom ci boppam moo ñu xamal ni que moom moo ko dama koy liir sax kañ boo bëggee. non jarul ah, liir man liir naa ko. waaw liir nga ko mu ci Facebook moom si boppam moo ñu wax ni mais liir ko jël téléphone bi bàyyi ma liir ko. waaw liir waaw liir ko bàyyi ma liir ko. à mon retour de la prière du vendredi du 28 juillet 2023 des agents de RG le renseignement généraux mhm. postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à filmer j'ai arraché. waaw j'ai j'ai arraché waa déglul. man loolu laa bëggoon déglu waa déglu waaye j'ai arraché. déedéet déedéet amul la j'ai arraché da ngay déglu tamit da ngay bàyyi ma continuer yaa na ma liir kon na may liir. parce que waxuma ak yow Sénégal lay waxal j'ai arraché le téléphone et je demande à la personne de débrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises ce qu'il refusa qu'elle a pris qu'elle a prise ce qu'elle refusa présentement une équipe de gendarmerie léegi ñoom ci biir loolu bu ñu fàtte. léegi waxul j'ai arraché. dama ne waaw même bu ne j'ai arraché non dama ne waxuma loolu dama ne. Hmm. gendarme bu jigéen bi. moo ne Ousmane Sonko arraché wu. nga ne yow Ousmane Sonko nee na arraché na ko. waaw waaw léegi luy def enquête boobu nag. non waxuma loolu ki ñu waxal nag li Ousmane Sonko wax laa wax. non juge bi wax nag. xanaa du mooy demandé du mooy questionné non non dinaa ci dugg waaw parce que boo ma bëggee waxal wala déglu ci li ma wax ne ne moom ci ki confirmé ne Ousmane Sonko arraché wu ko kon léegi loolu lu ñu ci war a wax juge lan lay jëriñ d'accord intime conviction te ci biir lool bu ñu ma fàttee usman Ousmane ko ne damay wax de je rappelle aussi ces mêmes FDC euh, FDS moo volé quatre portables sàcc nañ quatre portable portable euh, ak ordinateur MacBook Pro MacBook di moins waaw MacBook déet déet bàyyi ma déet je vous en prie. loolu yëpp ñëpp yor nañ ko tamit. waaw déedéet mbiru sàcc tamit dañ koy wax. non non non c'est le mais vol bi dañuy tamit pour confirmer waa léegi nag ñu sàcc téléphone Ousmane Sonko sàcc ay kii kiyam ordinateur am sàcc ay millions ñu duñu sàcc. ñoom loolu ak ñaari ay ñaar lañ. léegi yow li nga wax loolu du sàcc. Ah, quoi. am na wala non mais attends ñooñu bu ñu nekkee seen liggéey nekk en instruction. waaw eh, dama ne loolu lan la ne. mais ñooñu dañu am enquête bu ñuy suivre. dañu am seen leen ñu jël ko. waaw d'accord naa waaw bul wax sàcc kon. déedéet dama ne. c'est dangereux ah. leen li ngeen di wax. aussi tamit non waxuma la dama ne loolu lan la. mais bu fekkente ne ni ñooñu dañu nekk seen liggéey. waaw di enquête yoon ne leen jël leen nu ñu jël. waaw d'accord. waaw léegi dañuy def enquête mais bul ne ma ne li ma la wax nga bëgg ne ma moom dafa ne. sax dama ne loolu lan la. léegi ce qu'on va faire. non dañ dañ may déglu aussi tamit li ngay liir ni da nga koy arrêté benn. ñaar ñu mm. continuer lan nga gis ni ko mooy solution pour ñu jeexal ci loolu. solution bi ma gis mooy. Mm. Ousmane Sonko sénégalais boo xam ne nii damm na sonn na tàyyi na li ñuy def Ousmane Sonko. Mm. képp kuñ ko defoon ci réew mi nga yenu say daal daw daw wala nga dof mais am gëm yàllam ak ragal yàlla moo tax lii mu nekk mu nekk ci ci biir liñ ko def nii buñ ko defoon ñii seen waa ji mi demoon di ñaan buñ ko ko defoon heure bii waxatuñ ko mais am na ndëgëraay am na gëm yàlla xam nga lii ñuy wax nii yëpp damay bañ àdduna yëpp dañ may déglu émission bi lu tax ngeen invité ma ñëw parce que dama ne ba muy métti dafa na ci nekk bu naqadee dama ciy nekk moo tax ma ñëw seen du dëgg pour ñëpp confirmer ko loolu sama courage la parce dama gëm Ousmane Sonko dara mënut a tax ma dellu ci ginnaaw parce li ma gëm ak li may def mais li ma wax police yi waxuma dañoo sàcc àdduna yëpp ak may dégg dama ne loolu lan la na leer